sama babi dana sama babi dana dee na man journaliste sama baat bi dee na Ousmane Ba Ousmane Ba ñu ngi ku sibile ngi sibila ñi ngi sibila ñu sibile sama babi dana la ilaha illallah la ilaha illallah Ousmane Ba hala hala la ilaha illallah la ilaha Non, plus jamais vu. Plus jamais vu. Plus jamais vu. Plus jamais vu. Plus jamais vu. Plus jamais vu. Plus jamais vu. Plus jamais vu. Plus jamais vu. Plus jamais vu. Plus jamais vu. Plus jamais vu. Plus jamais vu. ils ont de avancer de avancer ba gagné combat du jamais vu du jamais vu du jamais vu du jamais vu du jamais vu objectif au Auchan la objectif au Auchan la objectif au Auchan Ba la du jamais vu direction au Ba la woon du jamais vu sama baat bi dee na sama baat bi dee na sama baat bi dee na sama baat bi dee na sama baat bi dee na gis ngeen envahi par la jeunesse voilà barrière c'est fini c'est fini. laa là. illallaah Le Oui Ferraille. Oui, Ferraille. ferraille. ferraille. feeraay ferraille. Ferraille. Ferraille. Ferraille. Ferraille. Ferraille. avec la jeunesse la jeunesse est tellement déterminée qu'on ne peut pas l'imaginer la jeunesse est tellement déterminée bu leen faire une chaîne de baisse. la lumière la Lumière TV, la Lumière.net, c'est un site d'information qui vous donne en temps réel. La Lumière.net, site d'information bestacle. ñu ngi si liggéey su paree jox leen ko la Lumière point net ca Osamba c'est Osamba la sa Osamba la Osamba objectif Osamba la Osamba la Cœur Massar Ken, xamul lu muy nduróo laa ilaha c'est du jamais vu xoolal ndaw c'est du jamais vu c'est du jamais vu Auchan ba ñu ngi koy taal ñu ngi koy taal ñu ngi koy taal ñu ngi koy taal ñu ngi koy taal ñu ngi koy taal ñu ngi koy taal ñu ngi koy taal ñu ngi koy taal nangu maa sax jege nangu suma sax jege xaa ma yegg si kaw xaa ma yegg si kaw ñu ngi koy taal gis nga dégg kii ne suñu waa garage amul lu ñu lekk ne suñu waa garage amul lu ñu lekk kate leen loolu la wax du mu see egg xool leen laa ilaha illallah xool leen xool leen Kër Massar xool leen Kër Massar xool leen Kër Massar xool leen Kër Massar xool leen Kër Massar Auchan Bala objectif bi Auchan Bala taar leen ma toog xool leen xool leen gendarmerie dañoo mujjee daw gendarmerie dañoo mujjee daw gendarmerie dañoo mujjee daw cinq oto ndaw yi di sànni ndaw yi di sànni Barça Real la remontada laa lay wax remontada moo fi am tey gis ngeen la ilaha illallah Auchan ba Auchan la Auchan ba la Auchan xool Kër Massar kenn xàmmewul kenn kenn xàmmewul kenn sama baat ba dee na man journaliste bi sama baat ba dee na Auchan ba Auchan ba mooy objectif Auchan ba Auchan ba objectif xool leen Kër Massar xool leen Kër Massar xool leen Kër Massar Auchan ba mooy objectif ba Auchan wu Kër Massar ba laa ilaha illallah xoolal booy yee mel na ku weer bu dee mel na ku séntu weeru weeru koor xool leen mel na ku séntu weeru koor xool leen mel na ku weeru koor laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa il déggal déggal déggal laa ilaha illallah laa ilaha illallah ci gën xale ay laay léegi booy ñoom ñooy baare laa ilaha illallah laa ilaha illallah ndaw yaa ngay daw lu waral lool ndaw yaa ngay daw ndaw yaa ngay daw lu waral lool ndaw yaa ngay daw ndaw yaa ngay daw lu waral lool ndaw yaa ngay daw ndaw yaa ngay daw qu'est-ce qui se passe réellement laa ilaha Kër Massar est noir Kermassar est noir et sombre. On peut le dire aujourd'hui, Kermassar est noir et sombre. Comme le combat était, j'ai la voix cassée. Sokolai, Kermassar est sombre, j'ai la voix cassée. On ne peut rien voir. De gauche, de droite, les jeunes étaient tellement déterminés. La gendarmerie a pu s'enfuir parce que les jeunes étaient tellement nombreux. ils étaient des pierres, de gauche, de droite. L'inacument en français, c'est juste pour aider. C'est mon beaucoup de Nasarani. Je vais vous la ilaha illallah. Kër osamba, osamba. Ousama Ousama laa ilaaha illallah xool leen comme Al-Qaïda comme Al-Qaïda Osamba, mon objectif ba xool leen mon objectif bi seen page seen site bu de bu tudd la lumière point net xaar comme ko la lumière point net site bu bees la lumière point net ak télé la lumière TV ay xale ñoo ko moom di si liggéey dina jox dina ko jox temps réel amul benn parti prise laa ilaha illallah Auchan Ba Auchan Ba waaw ndaw yi dañoo gën a déterminé wu ndaw yi dañoo gën a déterminé wu xool leen xool leen Auchan Ba mooy objectif ba xool leen xool leen laa ilaha illallah kenn musu kaa gis kenn musu kaa gis kenn musu kaa gis kenn musu kaa gis c'est du jamais waa Kër Massar ils sont filtres nga ne. waaw yow fenn. amul fenn kay daay daay daay. dañu libéré Sonko Sonko. waaw waaw nga ne. dañu libéré Sonko. kese waaw kese. waay waay waay kese. Sonko rek. Sonko rek. waaw Sonko Sonko. booy yaa ngi daal di Osama nag dañu kaa sécuriser rek. Eh, Sonko rek. xoolal booy bee si kaw. xoolal booy bee nekk si kaw. te eh, kooku ne si kaw yow. xoolal booy bee nekk si kaw. laa yi laa xoolal booy bee gis ngeen ku nekk si kaw. see eh, ku nekk si kaw moom mu ñëw def moom mu ñaaw rek. barrière feeraay. feeraay feeraay. bu yàq buy jaay feeraay bu yàq laa ilaaha laa ilaaha illallaah leen lii xool leen dañoo daw daw ñoom dañoo tapé daw nañ feeraay dana am dëkk tey dëkk bi non te feeraay am bagaay laa ilaha illallah la egg mille vingt mille laa bëgg vingt mille vingt mille quinze mille personnes wala ma dagg live quinze mille personnes ma dagg live quinze mille wala ma dagg live quinze mille personnes ma dagg live quinze mille personnes ma dagg live quinze mille wala ma dagg live xool leen xool leen xool leen laa ilaha illallah libéré libéré libéré Sonko Kër Masar est noir Kër Masar est noir Osamba la gars yi jóg Osamba Osamba Osamba eh, objectif bi Osamba la Osamba Osamba Osamba ndaw yi bëgg nañoo daj waaye waaye bëgg nañoo dajji waaye gars yi dañoo insécurité Osamba daa mel dañoo xamoon seen bopp balaa ndaw yi di dajji mel ni grand fort day ñaar waaw Osamba laa ilaha illallah Osamba laa ilaha illallah xool leen oh. eh, libéré libéré Sonko libéré Osama mooy objectif ba Osama. Osama. ah Adji Sarr dafay déconné. dafay déconné. xoolal ma rek. Osama. Osama Osama. Osama. Masamba Masamba Masamba boo yaay pousse oto. journaliste nag sooy liggéey parce que papa wax la ñibbisil da ngay ñibbi sam papa nee na naa ñibisi maa ngi ñibbi journaliste la mais tamit damay dégg ndigal sam papa moo naa ñibbisi damay ñibbisi waaw. le La ilaha déggal lu meu, wax nee na prenez ce é vous voulez c'est à moi de payer é ilaha meew ya ay waay Auchan ba Auchan ba Auchan ba Auchan ba Auchan ba Auchan ba Auchan barrière ya nutelaa ya nutelaa ya saaku ceeb ya ku jël da daw ku jël da daw non non garaawul non garaawul man say la du ma laa ilaha illallah maa ngi yemale fii live fi maa ngi yemale fii live fi Ousmane te nyibi, sampap maa sampap ñibbi sama papa nee na sama papa nee na naa ñibbi si maa ngi ñibbi maa ngi ñibbi maa ngi ñibbi laaj fii laa koy yemale paa bi nee papa mais ma rek ba si kanam papa maa la papa papa maa la ko ñaan mais ma liggéey tuuti papa booy yaa lu xew lu xew lu xew non Osamba Osamba envahir Osamba envahir nañ ko Osamba Osamba envahir nañ ko Osamba Osamba envahir nañ ko taal nañu oto yi taal nañu oto yi taal nañu oto yi Osamba envahir nañ ko y a plus de sang ici Osamba dañ koy dégg turu Osamba nekk mais Osamba amatu fi ndaw yi envahir nañu Osamba bi taal nañu oto yi la ilaha illallah la ilaha waaye c'est du jamais fii mu ngi sax kami boo yaa ngay dugg boo yaa ngay pàccoo booy ay waay café la ñu xëccoo café la ñu xëccoo café la ñu xëccoo c'est du jamais la ñu xëccoo lii man da ngeen ko mën a Auchan ba laa la paa bi nee naa ñibbi si fii nag uh, lan laay fi di yem ma bàyyi la ngeen ko ak keneen ak keneen waaw taal lañ fépp Ousmane maa ngay ñibbi maa ngay ñibbi déggal ni Ousmane Ba Ousmane xool leen xool leen xool leen xale yu ndaw yi man libéré Sonko ba ànd ak Ousmane jaaxal na ma trop libéré Sonko ànd ak Ousmane libéré Sonko ànd jaaxal na ma trop libéré Sonko ba ànd ak Ousmane ça m'étonne quoi laa ilaha illallah Libération Sonko ba là. ak osa laa ilaha illallah là. ilaha illallah déggal déggal dugg ne lañ ngeen di ça le journal du peuple le plus jeune PDG d'un site d'information informer juste et vrai la Lumière.net, s'informer devient une nécessité mais la lumière TV une chaîne qui vous donne l'information en temps réel tenho kontaan dañoo lii laa ilaaha illallah Auchan ba way pomiteer ba pomiteer ba pomiteer ba pomiteer ba pomiteer bër ba bër ba bër ba bër ba bër ba o chamba, bër ba jamais vu c'est du jamais vu c'est du jamais vu c'est du jamais vu c'est du jamais vu xoolal Melba, Melba, Melba, Melba, Melba. Merhaba. Hey vay Samba. Boy baa ngay naan meew. Pire Samba. Pire Samba. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Libéré. mu ngay garaaf. mu ngay garaaf. xam nga jël libéré Sonko. daa mel loolu lañ bind. boy pousseur pousseur pousseur pousseur pousseur pousseur pousseur pousseur. gis ngeen libéré gis ngeen pousseur pousseur. lam ñoo ko bind lam ñoo ko bind mu ngi nii libéré libéré Sonko ñoko ko bind ñoo ko bind ñoo ko bind libéré Sonko pousse pousse laa ilaaha illallaah ñoom ku nekkee ngi jël libéré Sonko waaw libéré mo nekk nii libéré Sonko waaw nice ok Ocha merci la ilaaha illallaah booy daaj nañu bu nekkee ñu jël lu mu moom fii fii garaaw na Auchan ba Auchan ba ku nekkee ñu jël lu moom ku nekkee ñu jël maire yi xale ndaw dangay dem sax ba da ngay woowaale si ay ndox ba ndox ba ndox ba ndox ba ndox ba ndox ba la ceeb ba madaar ba laa ilaha illallah boo yaa ngay daw journaliste baa ngay daw booy yaa ngay daw journaliste baa ngay daw booy yaa ngay daw journaliste baa ngay daw booy yaa ngay daw journaliste baa ngay daw booy yaa ngay daw journaliste baa ngay daw booy yaa ngay daw journaliste baa ngay daw booy yaa ngay daw journaliste baa ngay daw mais yéen détermination bi ngeen am booy yaa ngay daw journaliste baa ngay daw booy yaa ngay daw journaliste Auchan ba Auchan ba Auchan ba Auchan ba Auchan ba Auchan ba O jamba o jamba o jamba bala jaam mënu ma laa jël direct bala mënu ma laa jël direct booy yaa ngay daw journaliste baa ngay daw o jamba booy baa ngay diri booy baa ngay diri laay laa am njaay am joob la am njaay am joob jëlal ceeb jëlal poobar jëlal duulin jëlal mayonnaise jëlal Nutella jëlal chocolat o jamba o jamba laa ilaha illallah pusal pusal o jamba booy tal nañu o jamba booy dugg nañ soo saama daa mel ne am njaay am jóob la da nga waaw déggal ay eh, waay cetatan les jeunes sont plus déterminés au chamba au chamba taal nañ au chamba au chamba yu ndaw yi esaay ne da ngay dem woo sa yaay woo tanta woo tonton na ko ñëwal au chamba booy dañuy raare raa la bi raa raa la parce que porte bi waa ji da kaa defar moom baax affaire bi raa la raa bala caam nee na naa jël raa la raa la raa la laara laa ilaha la ya y'a un mort yaa on vient juste de m'informer y'a un mort à am yaay am joob da jël xolal way yaay yo o saaba ay waay café café kafe lii lan la lii lan la lii lan la lii lan la lii lan la laa ilaha illallah jël daaw na lii lan la mais lii lan la jël daaw na jël daaw jël daaw na jël daaw jël daaw na jël daaw jël daaw na jël daaw jël daaw xoolal fii lañ ko bind de libéré Sonko jël daaw na jël daaw na laa ilaha jël daaw na mais ma ñëw mais ma ñëw mais ma ñëw libéré Sonko bi laa jël libéré Sonko libéré Sonko gis ngeen xool laa ilaha jël daw la jël saccagé laa ilaha booy lii damay fàllu ko événement naar ya wooy kus kus